xam nga dañ dul seetlu wax bi njool faama jaxaay lu la tee wala jaxaay du la tiim way ko nga wax jaxaay du la tiim njool faama jaxaay du la tiim di xaacooy si waaw waaw lëmbeel Sénégal ne leer yi diine way ko nga wax jaxaay lu la tee njool faama jaxaay lu la tee di xaccooy si waaw waaw lëmbeel leeri diine way ko nga wax jaxaay du du la tiim anjol faama waaw di xaydu latim di xaacooy si waaw lëmbeel Sénégal ne leeri diine gis nga loolu rek dafa doy xam nga picc jaxaay piccum jaxaay bu génnee bu sabee picc yéppay waaf bu yuuxoo rek picc yëpp nëbbatu muy keek-keeki di dem ba kenn gisatu ko picc soog a génn jaxaay moomu mooy Cheikh Alhaaji Malick dafa nekk ci gaar bi bu dee jaxaay lu la ak jaxaay du tiim dafa nekk ci gaar bi di xaar otoraay bi ni ko mag ñi daan waxee train bi am benn silmaxa buy yalwaan te Maodo ngi toog ci alxaaji Malick moo dal moo teey moo am sago moo nëbbatu moo feeñal rasulullahi xam nga Maodo mu toog Cheikh Alhaaji Malick mu toog ci gaar silmaxa bi di yalwaan ba ñu war a dugg pour départ silmaxa bi soog a yëg ni Cheikh Alhaaji Malick a ci gaar bi mu ni li ko yàlla may te dégguma benn kërëng-kërëng benn rëng-rëng kon nag jot na nga xaacu nag njool faama jaxaay lu la tee di xaacooy si way bi jaxaay du la di xaacooy si bu Cheikh Alxaaji Malick mu saan yor téeréem toog ci taatu garab di jàng figu wàccul ba dem piccim jaxay ñemewul a tiim Maodo sab bu ko defé yàlla jël ruham jaxay du la tim di xaajooy njool faama waaw jaxaay du la tim di xaajooy si lëmbeel Sénégal ne leer yi diine jaxaay du la tiim yaa wane leer yi gis nga leer googu mooy nuuru nuuru nam yooyu abaana mi nuuri yi ñu commencé dama ne bu ma saan ci taatu garab piccim jaxaay du ko tiim mukk di sab te Maodo wàccul ba ñibbi ndax piccim jaxaay mu mës a tiim Maodo sab rek sa ruux dem ndax li piccim jaxaay di xaacu ba picc yëpp waaf noonu la Cheikh Alxaaji Maalik xaacoo ñëpp waaf. yoon fa ma حج خيل لتين خاجوزي لمبيل سنغالي ونهلري دينه coy si xanaa baax lembe Sénégal yaawe ne leeri diine ah jol faama jaxaylu la teedi xaa coy si diine a yool fa ma jaxaylu la teedi xaccooy si waaw lëmbe Sénégal mu do yaabane leeri diine a ah, weer feeñ na talaatay weer غير سبازيم جرى إلينا جنيل جنار دين جول فما جخيل التي خاتشوي خنا لبي سنغال يا ونلري sa baaya nga nooru diine si Rasuula ni du may seen baayo diine a jool fa ma jaxaylul te di xaacooy xanaa baaw mawdaya weneleri jine bilay waat naa ci barke baay Mansuur Si bu saata xewe ñu xëkku yor raaya diine cooy xanaa ba lebe Sénégal Maodo yaa wane leeri diine bilaay waat naa ci barke maami soora mbay si waaw bu saa taxawee ñu xëkk yor waayo diine ah. di xaat rafet na fi liggéeyam ci réew mi kuy mm. siñel mbaax siñel koko ñu ngi jaajëfal maam as liggéeyam rafet na fi liggéeyam ci réew mi kuy siñel mbaax siñel koko jumaam yaa ngi jàkkaam yaa ngi foo dem si kër sëriir jàmbaari tool saxaw na xuy jëmb te tool baa ngi waaram yaa ngi mbay mi rafet na kaar na bur yàlla dollil koy ngërëm ndax yeyoon ko ba muy dem la xëy jébbal sëriñ Babacar Sy ab yenam ba réew mi fu as def benn baay mbay fukkal na ko di daaral sunnas maam as di jëf ay jëfam ni moom ba téeméer bu daan seet as junneem ñëw na seet si ko mbay toogutu as ak fayda mbay taxaw mbër mu ñëw di jéem sóoru as mbay jàggi tey kenn miimu ko dul woon jataayam fii kat liggéey bi fi as defoon du am benn jeexital ndekon gaañi ruute ko bilaay waat na ci barke maami Cheikh Tidiane Si bu saa taxawee ñu xëkk yoraaya diine